mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi ñëwaat ak yéen ci téere bi ñu tuddee Siraaju Salik baabu usuli diin bunt bi mooy jàngale cosaanu diine wa maa yajibu ak la <clears throat> bunt bi mooy jàngale cosaanu diine ak li war mukallaf al baabu buntu fil asli ci cosaan maa yuusilu mooy lu yeggale ilal matlubi ci lañ sàkku loolu moo di bunt wayit loq danañ ko jooyal ne albaabu bunt rek wayu raadu ñu namm minu ci moom annabi yonent bi sallallahu alayhi yal na dool ko xewal wa ala ali ak ñu ñoom wasalmat doolil musal danañ wax baabu buntu namm ci <clears throat> albaabu boobu yonent bi sallallahu alayhi wa wa fi haza ci lii xaaral la wax baadum ñenn ci borom xam-xam yi ko anta baabullahi yaay bunta bi yàlla bi kullu mri'in bépp as cam ataahu dikkal na yàlla min xayrika jaaree ci keneen ku dul yow laa yadxulu du dugg wax na dëgg kon al baabu danañ koy wax namm ci yonent bi ni ko waa ji waxee yow yaay bunta bi yàlla bi ku dikkal yàlla jaare ci beneen bunt bu dul yow du dugg ndax ku dikk ci kër jaaroo ci bunt ba doo dugg al baabu nag li muy firi ci cosaan mooy la lay yeggale ci la nga la ngay sàkku rek loolu rek mooy albaabu léeg-léeg ñu wax na mucc yonent bi wa fi bu dee si jëfandikoo ñoom fiq ñuñ fiq lan mooy baabul mi firi mu ne ismun la li jumlati ñeel lañ dajale min masaayiri fànn ci masalaay ab fànn almuraad ba buñ bëgg a jàng boo bëggee wax ci njàpp misaal lépp lu aju ci wàllu njàpp rek si buntam njàpp la nekk loolu mooy bunt foofu bu dee ci istilaax jëfandikoo ñooñ fiq bunt li muy firi mooy tur la bu dee wane ne fii dañ fee dajale masala yu aju ci wàllu fànn masala yu aju ci wàllu fiq wala masala yu aju ci wàllu naxu wala masala yu aju ci wàllu jàpp wala masala yu aju ci wàllu julli fañ ko dajale loolu mooy buntab loolu masala boo ko dajalee ci wàllu julli lool mooy baabu salaat buntab julli <coughs> كفن التوحيد نيكي فن التوحيد وغيري اغلو فن التوحيد بريد ام مثلا يو خمني والو التوحيد رنغا فرجالي مي باو التوحيد بنت بي جانغ التوحيد باسكو فن تاجي التوحيد لنج فرجالي بري فن فقه لنج فرجالي مي باو الفقه ميم تي بير فقه بري ازكار لنج فرجالي باو زكار لي تود بري هور لنج فرجالي باو صيام لي تود لول مولي باب تي جيفنديكو نيون فقه باب اصول الدين لي مي بنت بري جانغ اصول الدين nga ne ko lan mooy usul mu ne wal usul usul jamu aslin mooy jamu aslu gi firi cosaan aslu jamoo mooy usul ay cosaan aslu moo benn cosaan usul mooy ay cosaan lan mooy usul mu ne waxu moom maa mooy la nga xam ne ni yan ban yi dana tabaxoon lii ci moom xayru lu moom usul mooy li nga xam ne ni lu moom ci moom lay tabaxoo moom tabaxuwul ci dara leneen li moo moo tabaxoo ci moom baay mooy cosaanu doom ndax doom moo génnee ci baay. waaye bàyyi génne wu ci doom wal muraadu lañ na mu bil usuli ci cosaanu diine ala xaayidu mooy pas-pas li xol war a fas al aati yey dikk bayaanuha leeram yi nga xam ne xol da ko war a fas te danañ ko leeral ci kanamam loolu lañ nam mu ci cosaanu diine nga ne baabu usul diin nga wax da mooy diine moom mu ne wa diinu diine moom maa yu tadayyanu mooy la ñuy jaamoo yàlla bii ci moom min a ahkaami sharia ci àttee sharia wa tadayyanu jaamoo yàlla bi ci moom qubuluha mooy nangu ko wal isaanu ak toroxlu lahaa ñeel at yooyu intiqaadan fas moo xam fas kaana la nekk bil qalbi ci xol aw nutqan wala da nga koo tudd bi lisaani ci làmmañ aw amalan wala dan nga koo jëfee bil arkaani ci say cër imtisaalan moo xam topp ndigal la wacc naa bon wala bàyyi tere diine mooy li ñuy jaamoo yàlla ci àttee jaamoo ko yàlla mooy nga nangu ko ni ko yàlla tëralee te defee ko noonu toroxlu ba defee ko noonu loolay jaamoo ko yàlla loolay moo xam li nga war a fas sa xol la tañ digal la ko ni ki gëm yàlla wala li nga war a génnee sa xol la tañ tere la ko ni ki rey walla li nga war a tudd sa làmmañ la comme di tañ digal la ko comme wax lu baax wala li nga war a tudd bàyyi sa làmmañ la tañ tere la ko ni ki wax lu bon wala li nga war a jëfee sa ponk la tañ digal la ko ni ki julli wala li nga war a bàyyi si say eh, cër la tañ tere la ko ni ko sàcc <clears throat> yooyu yëpp boo ko nangoo ni ko yàlla tëralee defee ko nam ko bëggee looloo di diine yow jàpp am nga diine waaye di maa ngi ci diine diine yoo xam ne doo jaamu yàlla doo doo topp ndigal doo bàyyi tere loolu diine kon sharxa nañ baabu usulu diin wa maa yajibu alal mukallaf muy wax nag li njëkk war ci mukallaf mooy lan mu ne awwalu waajibin li njëkk war alal mukallafi ci mukallaf maarifatullaahi moo di xam yàlla yaqiinan xam gu hóor gu àndut ak benn sikk fa yi na nga xam loolu yow miy laajte soo bëggee xam li njëkk war ci mukalaf mooy xam yàlla xam gu hóor loolu njëkk war ci mukalaf bu fekkee yàlla la bind nga jaamu ko wàccee ko wàcc waayam la bëgg looy demee di jéem a lu koo xam ni waroo koo jaamu sa yoon nekkul ci moom li nga war a njëkk def kay mooy xam yàlla balaa ngaa xam loo dugal sa biir bii métti mu la may xaalis boo dugal sa eh, ñam woo dugal sa biir bii nga xam yàlla mi nga xam ni moo la bind bind ñam mais yaa ngi jàng métti te bàyyi sa diine hmm? xam ni ngay defaree sa àdduna te xamoo ni ngay doxalee sa diine dëgg-dëgg ab julit bu ne war naa moytu loolu su ma xasam mu ne mu commencé yu béy di leeral awwal waajibin li njëkk war. alal mukallafi ci mukallaf ay awalu maa yajibu li njëkk war alal mukallafi ci mukallaf maarifatulaay mooy xam yàlla taala kawane li njëkk war mukallaf moo di xam yàlla nga ne ko lan mooy xam yàlla mu ne woowa xam yàlla aljasm mooy dogu bi wujudi zaati ci am ak jëmmam ji wa sifaati yi ak meloom yi ak daalati yee tegtal ala uluhiyati yi ci nekk gim nekk yàlla laa maarifatu kun yi zaati yi waaye nekkul xam dëgg-dëgg jëmm yàlla ji alal yéegi kawe lenn zaalik ndax xam dëgg-dëgg jëmm yàlla ji amru mbir la moo xam ne tax suuf dana gàttañ lu alma xuulu xel yëpp an idraaki si jot ko lan moo xam yàlla xam yàlla mooy nga dogu si sa xol mu na yàlla am na meloom yi nga xam dafay wane ne moom rek moo yàlla melo dëgg la nga jëm koo xam xam melo yooyu waaye waxuñ la xam yàlla mooy nga jéem a dem ba xam dëgg-dëgg yàlla comme ni nga mën a xamee dëgg-dëgg Babacar Cubb bokkuñ ndax xam dëgg-dëgg yàlla mbir la moo xam ni xel yi mënuñ faa yegg dara mënu faa yegg moo xam xam dëgg dëgg dëgg jëm yàlla ji ah kooku moom mënu nekk qaala wana saahibu risalati borom risaala ne tafakkaru xelaat leen fii ayaat yi ci kawteefu yàlla yi waaye walaa tatafakkaru bu leen xelaat fii maahiyati zaat yi si dëgg-dëgg jëmmam ci doomu aadama yi dañuy tegtaloo kawteefu yàlla yi ci xam kan moo yàlla moomu waaye mënuñoo tegtaloo dëgg-dëgg jëm yàlla ji ci xam kan mooy yàlla parce que foofu xel yi mënuñ faa yegg ba di fa xelaat wa qawlu wax gi mu wax ne yaqinan ci lu hóor xam yàlla gu hóor huwa aynul maarifati loolu mooy jëmmi xam yàlla na ko xam-xam gu hóor goo xam ne dafa du amati benn sikk ndax kii mooy yàlla wala déet da ngay xam yàlla xam gu hóor ba nga xam ne daf lay hóor na yàlla lu am la yii ay meloom la ba kenn dootu la mën a jax-jaxal ci ba nga ba nga ba ngay weddi yàlla wala nga di ko bokkaale waaye xam goo xam ni wóorul la na est-ce que yàlla xam na am déet bu yàggee ci xéeféer nga jëm loolu sax jëm xéeféer la parce que yàlla boo si sikk rek gëmatoo ko war mu kallaf mu kallaf nag mooy kan daf ne li njëkk war mu kallaf mooy xam yàlla xam góor loolu tekki nañ ko ah waaye kan mooy mu kallaf tekkee ko mu ne al mu war mu kallaf mu kallaf al mu xaata bu bañ sàkku ci moom bi maa zukkire ci liñ tudd nii mukallaf bi ñu wax ne dafa war a xam yàlla alaaqilu mooy ko am xel kon dof génn na albaaligu ku jot baax xale génn na zakaran moo xam góor kaan la nekk unsa wala jigéen góor ak jigéen yëpp seen nag ku am xel jot baax ku koy mukallaf jot baax nag danañ ko xamee ci juróomi màndarga waxoon nañ ko ci ibnu Ashir ñaari jigéen rek ñett yee góor ak jigéen ñaari nga xam ne jigéen rek koy gis mooy ambu ak gis deretu reegal jigéen ju ko gis bu ko booleeg am xel mu kalaf la ñett yi nga xam ne góor jigéen danañ ko bokk mooy sax karaw nag wala poqtaan ak sikkiñ ak am dix-huit ans muy fukkaat ak juróom-ñett ak génne man niyu jigéen nag nee na mi saxe sikkiñ ñett yi ku ci gis benn boo ko am xel mu kalaf nga wa taklif togg jëf ilzaamu ma moo ñu waral ci yow li nga xam ne fii nekk na si kulfatun ak coona ay mashaqatun ak coona la nafsi si bakkan togg jëf moo ñu fekk loo xam ne coonaan si ñu waral ko ci sa kaw <coughs> looloo di togg jëf moo tax jaamu yàlla yombut bu fekkoon jaamu yàlla dafa neex lool boo ko jëfandikoo mu neex lool doo am benn jafe-jafe ñëpp dañuy woote ne jaamu yàlla lañ borom bakkan yeeg ñëpp dañuy woote ne jaamu yàlla lañ waaye fa ñu xamee soppe yàlla yi ak ñu dul soppe yàlla mooy ñu nangul yàlla tantaane gu diis yàlla mi sant sax diisut diisut na oyof na lool juróomi julli ci bis yëpp waaye waaye lu muy oyof oyof oyof seytaane diisal na ko ci bakkan yi yow mi nga xam nag fexe nga xeex ak sa bakkan ak seytaane moomu ba toggoo jaamu yàlla yooyu dëgg-dëgg yow nangu nga ne ab jaamu yàlla nga faarif xamal loolu muy wa qawlu faarif wax gi mu wax ne xamal loolu takmilatun lil bayt daf koy mottali bayt bi rek xam yàlla nag soo ko defee mooy ne gëm nga yàlla gëm yàlla dafa war a am tegtal ndax borom xam-xam dañoo wutee ñi ne boo gëmee yàlla ta mooy si tegtal sa gëm googu wérut ñi ne déedéet boo gëmee rek baax na moom nag mu bëgg laa génnee ci wuute boobu indil la tegtal goo xam ni di la nekkut tegtal tafsili di la ko tàqaleel mu defal la ko ijmaali mbëmbëstal boo amee tegtal ak mbëmbëstal si sa gëm gi sax sa gëm gi wér na mu lay jox tegtal nag ne la wa innama la alamu naka alam bi turan mboolem seen haadi sun aji sosu la wallaahu yàlla moom mawjudun lu am la qadimun lu njëkk la waari sun aji doom na lépp la moo demee wala maa kaanar ba mu nekkee maarifatulaay xam yàlla taala kawe na wa maarifatu rusul yi ak xam yonent yi bi subuuti maa yajibu si sax la war na mina sifaati ci melo yi wa nafi maa yastaxiilu ak dàq la jomm na wa jawaasi maa yajuusu ak daganal la dagan minaa ci melo yi ba nga xamee ne xam yàlla ak xam yonent yi mooy nga xam melo yi war ci yàlla ak yi war ci yonent yi xam melo yu jomm ci yàlla ak yu jomm ci yonent yi xam melo yu dagan ci yàlla ak yu dagan ci yonent yi laa yaxruju du génn bii ci moom al mukallafu mukallaf bi mina taqlidi ci roy almuxtalaf roy gu ñu wutee fii sixati imaani yi ci wér a gëm fii sixati imaani saaxib yi ci wér a gëm ak boromam xam nga li war si yàlla ak lu jom si yàlla dagan si yàlla borom xam-xam bind nañ ko yow fekk si nga bind ko nga jàpp ah boo ci amul tegtal yow kuy roy nga ndax kuy roy mooy kuy fekk waxi jàmbur rek nga jël da ngaa fekk borom xam-xam bind ko rek nga jël ko ne yow lii dafa war si ah imaanul muqallil nag. imaanu koo xam ni dafay roy amul tegtal ci la muy woote borom xam-xam dañ cee wutee ñi ne wér na ñi ne wérut illaa bi iqaamati dalil lu may saxal dalil alayha ci gëm googu gëm googu daal balaa moo wér nee foo nga am ci dalil wala ijmaa leen di la dalilu mbëmbëstal la ah ba nga xamee ne buñ amee dalil goo xam tegtal goo xam ne mbëmbëstal la sax danañ nangu ñoom borom xam-xam yi ne gëm gaal googu wér na zakara ci la tudd an naazim waykari huna fii dalilan ijmaaliyan tegtalu ma mëstal xaatiyaan bu aji dog bépp sikk bi ma ne yàlla ko xam la yaxruju dana yuxruju dana génnee ki ko jàng te gëm ko ani taqlidi ci roy allazi gi nga xam ne moom roy hoo moom raxsu mooy jàpp bi qawlil xayri ci waxi keneen bi laa dalilin ci dul tegtal andil la la tegtal boo xam ne boo si jàppee sa gëm gi nga gëm yàlla dana am foo ko teg te boo amee foo ko teg rek sa gëm gi boo déggee nit ñi ne yàlla nangam rek yow nga ne yàlla nangam am na ñu ne mu bëgg laa génne ci wute googu na andi la tegtal tegtal bi mooy lan mooy lam la wax ne wa innama al aalamu turran xaadisun al aalamu aalam ismun tur la limaa si wallaay ñee lépp du dul yàlla taala kawe na min saari xalqi ci moo la mindeef yi aalam buñ ko waxee muy mindeef mooy lu dul yàlla rek mindeef la lu ñu tuddee ko aalam wa summee tuddee nañ ko alaman alam li andoo ndax moom allaamatun day mandargal ala mujiri ci ala mujiri ci ko ko amal alam nañ ko tuddee ndax daf lay wan ki ko bind mindee fi dañuy wane lu bari ci kimtaan yàlla yi ak kawteef loo xool rek mu ngi lay tegtal na yàlla kenn la loolu tax ñu tuddee ko alam ndax moom mandarga la ci ko ko ci amal wa qawlu turran wax ji mu wax ne turan mooy jamian ay jamian mboolem seen turan mooy firi mboolem seen addina bi yëpp xaalisun ay sosu la aji sosu la lu dul yàlla rek dafa sosu ay wujida am nañ ko baada adamin gannaaw ñàkk lu dul yàlla dafa ñàkkoon ab gannaaw gu la dooraam yàlla mooy ki nga xam ne mosu ñàkk te du mosu ñàkk wa dalil luy tegtal ala hudu si si sosu alam bi mulaazamatul enraadi mooy taqoo gu ñuy taqoo gaar gaar taqoo gaar-gaar yi li ajraam yi ñeel jëmmu alam bi mbindeef boo mën a jël ci mbindeef yi am na gaar-gaar yu muy taqoo gaar-gaar ni ki feebar xiif mar tàng sedd yooyu ay gaar-gaar lañ yooyu dañoo sosu boo gisee loo xam ne nag ay melokaan yam taqoo yëpp lu sosu la loolu dafay wane moom mii dafa sosu wow doosul aaraadi sosu gaar-gaar yi moom saabitun lu sax la ku ne xam na ne gaar-gaar yi dafa sosu gaar-gaar mooy loo xam ne nii foo mu taq si jëmm waaye mënu nekk jëmmi boppam ni ki xiif xiifa nga nee di dox mas ngeen koo gis mara nga nee di mas ngeen koo gis kon gaar-gaar foo mu taq ci jëmm te gar gaar yi ku ne xam ne dafay sosu day dikk ko dem bi tëjee du di xaa ci bees gi muy bees wa taxayura ak soppeeku gi muy soppeeku gaar-gaar luy wane ne dañuy sosu mooy bees gi ñuy bees ak a màggat soppeeku gi ñuy soppeeku loolu mooy wane dañuy sosu gaar gaar nag wax naa ne mooy loo xam ne foo mu taq ci jëmm nga door koo xam ba maa xarar naaw lañ saxal dal la tegtal naa ala ànd naa ala ma ne àddina bi luñ defar la wa kullu masnuun te lépp luñ defar laa budda du mën a ñàkk loo ñeel ko min saane yiñ defar ko bu dee àddina bi dafa sosu kon am na ko ko sos ki sos àddina bi mooy kan kooko yàlla مرام نيو ام لب لب لو نيك راه امنا لوكو سوس ديري لولي حق لب مام لپ لو نيت سي مندي في امنا لوكو سوس وا يالا مون كين سوسكو وا يالا بو فيكو امنا لوكو سوس مونو نيك يالا لي باغا خامي ني كين سوسكو موتا مو ما نيك يالا بون وخي ني لوني امنا لوكو سوس يا دا غي خامي امنا لو خامي ني مو مو لب سوس لپ لول لول لول لول موي لو خيلو kon ba nga xamee ne mbindeef yi moom lépp dañ leen a sos parce que loo ci laal mu nga taxoo gaar-gaar gaar-gaar luy sos la dafay dem ak dikk tàng ak sedd day dem ak dikk bees ak màggat day dem ak dikk yooyu yëpp ay gaar-gaar la yuy dal mbooleem mbindeef fi loolu waaye na ne mbindeef dafa sosu ndax lam taxoog lu sosu la te loolu sosu walay sa nekkul huwa loolu sosu al ilaahu di mën a nekk yàlla al munfaridu bi aji wéet بالإيجار شيء عمل ورينا دام أن يأكل باختيار الشوبرم لو خم من دفعي بيزا كم مجد دي يقوك دفرو دي تانغ كسد دي قيفا كمر دي لوت كأم كتن كوك مرنك يا لجنا خم ني موي عمل لوكو نير دي دي لوكو نير بدون عمل لوكو نير دو مجد دو مجد بدون عمل لوكو نير دو خيف دو لوتو نيم مالك لا يمل waaye loo jël ci mbindeef yi rek am gaar-gaar yu fa xew mu soppeeku nu ko neexee <coughs> loolu day wax ne euh, day wax am na ku koy soppi waaye moom ndeke bindut boppam kooku kooku bind lépp nag moo yàlla te bu ngeen seetanteree bu baax bu ngeen seetanteree bu baax da ngeen gis ne mboolem àddina bi kenn bindut fi dara dara dara dara dara kenn bindut yàlla rek moo bind doomu aadama mom la yàlla may xam-xam ak xereñ ba mu créer mais doomu aadama du sos lu amut ci misal ki tabax kër dañ nan defar na kër mais mom suuf ci yàlla ci la jël lépp lu mu defare kër yalla ko bind ay matériel yàlla bind la jël dajale rek ñu am na kër ko lu yàlla defar kër gi wala mom moko defar suuf ci suuf yàlla ndox mi ndox yàlla la ciment bi sa luñ ko defare suuf yàlla ci lañ ko jëlé fer yi ci def ak yëpp. weñ la guñ fekk ci biir suuf yàlla bindee ko noonu kon doomu aadama yi ñoo defar wala yàlla defar yàlla defar moo doomu aadama loolu yàlla daf ko ko xamal ngir mu mën a sant yàlla moom doomu bi ak gërëm ko yàlla daf koo defal ngir mu mën a sant yàlla moom doomu aadama bi ak gërëm ko waaye tekkul ne moom doomu aadama bi moo bind yàlla rek a bind xalaat leen foofu na da gis ne keneen bind dara dara dara yàlla rek mooy ki jagoo bind doomu aadama nag mën naa modifié mën naa modifier bam la joxe lay nag wu lay wan ne la nekk yàlla xam na yàlla xam na gi mooy lan mooy adduna bi yëpp loo ci laal kat dafa sosu nga ne ko luy tegtal la adduna dafa sosu mooy lan loo laal ci ak mbindeef yi maa ngi bi waaye romb na adduna loo laal ci mbindeef yi rek dafay soppeeku te luy soppeeku lu sosu la luy soppeeku lu sosu la kon yàlla moo sos lépp loo laal ci mbindeef yi rek dafay soppeeku. luy soppeeku lu sos la lu sosu la parce que bu sosoon boppam bu sos wuutoon du soppeeku ni mel lay mel ki sos lépp nag mooy yàlla loolu lay la wu dëgër wu lay yàlla am na mu commencé soobu nag di la jàngal melo yi ma melo yi nga xam ne mooy melo yàlla ñu koy tuddee asifaat asalbiya mooy melo melo yoo xam ni melo wu nekk rek dafay am lu muy rekkil lu muy dindi lu muy dàq ci yàlla dégg nga moom lay jàngale moo tax ma ne suma charan topp musobu fi zikri sifaati si tudd ay melo alwaajibi ya war maarifatuha xam ko tafsiran ci teqale melo yi nga xam ne da nga ko war a xam nag benn par benn moom lu koy tuddal moom la wax ci bayt bi fa qaala mu ne yàlla mawjudun lu am la fa wujudu am yàlla gi taalaa kawe lu sax li zaati ci jëmmam laa lee àllatin amul benn sabab yàlla moom dafa war a xam rek xam nekkul ne dafa war am pour bind wala dafa war a am rek am wal wujud am sifatu nafsiya meloog jëmm la lianna ndax moom wujud laa tadul du tegtala illa ala nafsi zaat lu mooy jëmmi yàlla ca fu yuqaalu ñu wan zaatun mawjudatun jëmm am am moom jëmm lay tegtal zaatun mawjudatun jëmm ji am kon amag ak yàlla gi moom jëmmam ji la melala wu aju ci jëmmam yàlla ci jëmm ji kon yàlla war ngaa gëm nekku am la loolu ci xam ko la bokk xadimun ku njëkk la xida man njëkk goo xam ne lay sa nekkul masbuqan di luñ jiital bi adamin ci ñàkk yàlla ku njëkk la te ñàkk mosul koo jiit maanaam mosul ñàkk moom yàlla dafa mos di am is ngir alxida mu njëkk ibaratun mën nañ koo fee an salbil adami ci rekki gi aji jiitu bil wujudi ci am moo tax la ko daree xiddam ba foofu ba ba ba ci melo maan yi bu yeg buñ jeexalee mm, mm, asifaat asalbiya melo yi dindil yàlla yelul ci moom danañ ko wax xidam ci lañ bokk ci la bokk ci melo yi dindil yàlla lu yelul ci moom mu ne xidam mën nañ koo firee dindi ñàkk gi jiitu am buñ waxee ne diw dafa njëkk rek mooy ne moom ñàkk mosul jaar ci ñàkk dàqal na ko ñàkk ku njëkkul rek man ngaa jaar si ñàkk kon xidam dafay dàqal yàlla ñàkk gi nga xam ni danay jiitu am moo tax ngir alxidamu njëkk ibaratun mën nañ koo firi an salbil adam ci dindi ñàkk asaabiq bi aji jiitu bil wujudi ci am wa salbu dindi ana fi mooy dàq rek ko ñàkk rek wa xawlu wax gi mu wax waarisun yàlla ji doon la ibaratun mën nañ koo an istimraari wujudi ci continuer amam moom yàlla taala kawe na li àndoon ndax moom baaqin aji des la laa yaf naa du jeex yàlla aji dégg nga aji doon la aji doon li mu firi mu ne mën nañ koo firee ne yàlla amam gi day continuer maanaam baaqin aji des la rek aji doon la mooy firi aji des la rek amam gi day continuer ndax yàlla dafay des du jeex wal ba xaaw des nag ibaaratun mën nañ koo firee an sël adami si dindi ñàkk allaahi xi gaa ji yéeg lil wujudi ci am des yàlla gi melala wulay won ne ñàkk dootu topp mukk ci amam gi gannaaw mu amee dootu ñàkkati bu mukk jiitoom gi moo lay won ne mosul jaar ci ñàkk waaye desam gi moo won du du mos a jaarati ci ñàkk yàlla dafa jiitu lépp mosul ñàkk amam gi ñàkk mosu koo jiitu waaye bu xasee amit amit moom yàlla ñàkk dootu ko mos a jot kon moom amam gi am la goomu fu mu commencé amul fu ñaari baat yooyu loolu lay firi yàlla ku njëkk la ku am la waaye ku njëkk la kuy doon la maanaam kuy doon la mooy kuy des la mu ne waxaay mun aji taxaw la moom yàlla bi nafsi ci jëmmam maanaam moom yàlla soxlawul dara loolu lay baat boobu di firi doomu aadama taxawul ci jëmmam ndax foo mu lekk door a mën a nekk foo mu naan door a mën a nekk bu jëfandikoo dara léegi mu dee yàlla nag soxlawul dara moom pour nekk moom jëmmi boppam ji rek doy na ko doomu aadama foo mu soxla yeneen pour mën a nekk kon kooku taxawut ci boppam foo mu am lu jël pour mën a des di nekk yàlla nag soxlawul dara dafa taxaw ci jëmmam maanaam ci jëmmam rek ci la nekkam gi nekkee wadu xinan borom koom la moom yàlla ku doylu la soxlawul lenn ci lu ñu war a soxla moo xam barab bu mu nekk jamono ji muy nekk mm, ay soxnaa ki dooma ki ki ko xamal ak yàlla soxlawul dara mu xaalif na aji wuteele moom yàlla de xal xii ñeen mbindee fi yàlla dafa wuteeg mboolem mbindee fi ci lépp law ñeel na ko moom yàlla assanaa tagg yàlla moomu mooy buur bi nga xam ne xeewana mboolem xeeti tagg yàlla moomu mooy buur bi nga xam ne xeewoona mbooleem xeeti tagg lawu sana lawu ñeel na yàlla asanaaw tagg mboolem xeet tagg rek yàlla ko yeew ñu sarxa baytu boobu ay anna laa nag yàlla taala kawe na qaayimun aji taxaw la bi nafsi ci boom ay zaatil aliya ji moom ju kawe ji maanaam moom xamam gi ci jëmmam rek la wuute naag xam ak mbindee foo xam lu lu ci rax mu am gàncax sax balaa sax foo ndox mu wàcc wasu xinan borom koom la ay saahibu xinan borom koom koom la mutlaq guñ jooyal koom guñ jooyal nag yàlla rek ko doom doomu aadama boo amoon ay milliards yaa ngi soxla loo lekk kon yow doyloo boo doyloo yow doo soxla dara yaa ngi soxla nekk boo tëdd yaa ngi soxla soxna yaa ngi soxla njaboot gu la dimbale kon yow doyloo yàlla na dafa doylu doylu guñ booyal fala yaxtaaju aajowul ila mahallin jëm ci barab yaquum gu muy nekk bii ci moom moo tax foofu ñu bari seen dëggu rëcc dafa ñu ne yàllaa ngi toog ci kaw aras yàlla nu muy toogee ci kaw aras yàlla soxlawut barab bu muy nekk bu toogoon ci aras rek soxla na sees boobu subhanallah loolu moom foogoon naa ne wax dëgg yàlla ku xaw a borom xam-xam du ko wax ndëggu rëccu la kama tax taaju comme nu muy aajoo a sifatu melo ilal suufi ca kañuy melal yàlla soxlawut daara soxlawut barab comme ni nga xamee ne melo dafay soxla borom melo dafay soxla borom tey xonq foo moo soxla jëmm jum nekk yàlla nag moo xamul leneen lu mu soxla moom pour moom fu mën nekk ndax du melo moom yàlla bay soxla jëmm moo tax li àndoon ndax yàlla taala kawe ne zaatun jëmm la laa sifatun du melo bu doon yàlla melo la comme xonq foofu mu soxla jëmm jum nekk waaye yàlla du melo jëmm la waaye moom am na ay melo boppam wala ilaa mu xassisin nekkul soxluwul aji jagleel maanaam soxluwul aji xamal ko yàlla soxluwul ku ko xamal ay lu mën a am si mu xassisin muujidihi ku ko xamal yujiduhu muujidin aji amal yujiduhu boo xam ne dana ko amal yàlla soxluwul ku ko war a amal وكيف يحتاج نن لي اجو الى شين جيمس دار من ذلك شي هو تم مو واخنا سي القران غني ون اجي دوير لا هن كل ما سواه لب دور موم ان الله غني عن العالمين يال دا فا دوير وريس من نيف ييب يانغو نالكو ووتال سيس بوم توك نالكو ووتال برب بوم نيك نالكو ووتال والو بوم نيك دغ دغ يا لول ويد نص القران لا تكسي القران غا ويد نخ يالا مو اني دا فا دوير وريس من نيف ييب برب سي من نيف لا بوك جامونو سي من نيف لا بوك والو من نيف لا سيس ام من نيف لا loolu lu ci yàlla di lu ko yàlla di doyee arsulaay comme naa rek arsu yàlla moo gëlëmu yàlla ak néeg yàlla benn lañ nekkul ne yàlla dafa xaj wala da ngay dem fekk ko mu toog mu laa dina laaf ak teraanga la yàlla kaweem gi kaweeg daraja la waaye du kaweeg barab ndax moom soxlawut barab bi nasil quran alquran moo ne inna allaha ganiyun anil alamina yàlla dafa doylu wulis min neef yëpp lan lay soxlaa dara wa lu shay'in te lépp lu nekk muftaqirun aji aajo yi ilay jëm si yàlla moom nag lu nekk ko soxla lu nekk ko soxla lu nekk ko ndax lu nekk am na lu mu soxla te loolu mu soxla yàlla ko mën a jox loolu maa dama bu muus da ngay teel a bàyyi xel sa borom de rawatina yow mi yàlla jagleel wërsëgu àddina dara looy dawati bay daanu nit ñi ñaar lañ doon daw ñii dañoo daw jëm ci jigéen ñi ñii daw jëm ci àddina yow yàlla may na la wërsëgu àdduna mën nga am soxna su baax eh, yow lu tee jaamu yàlla sant ko pour am alaxira mais yow mi amut dara ci wërsëgu àdduna yi jaamul yàlla góorgóorlu ma war nga ñàkk àdduna ñàkk alaxira yi kon doomu bu muus day xam ne nit ndekk dafa soxla yàlla ci lépp nag ci àdduna ak alaxira bu demee bàmmeel wéet lool amatul lenn lu ko mën a dimbale soxla foofu lay gën a soxla gën a soxla yàlla ndax fii lay leegi sax mu am ay nit ñu ko jàppale mais fële amul jàppale mu dara ki nga soxlaa nii nag bul ko fàtte qaala la yàlla mu koy wax ne yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi antumul fuqaraau yéen ñëpp da ngeen a xaajoo ilallaahi jëm si yàlla wallaahu yàlla nag moom huwa moom alganiyu mooy aji doylu waris leen alhamid mooy kuñ sant ay muxaalifun aji wuteeg la li xalqi yi ñeel mbindeef yi muxaalifun li xalqi yi yàlla dafa wuteeg mbindeef ay lu mën a mucc loolu am na laa naka yàlla taalaa kawe na muxaalifun aji wuteeg rek li saayiri maxluqaat yi ñeel mboolem mbindeefam yi yàlla dafa wuteeg mboolem mbindeef yi moom borom bi subhaanahu wa taala lay sa nekkul mu maasilan daa ji tolloog laxaa ñeel mbindeef yi li àndoon ndax moom yàlla taalaa kawe na قديم كنجكلا ويت من نفي باسرا ام ولمسن حادثه يسوسلن وجدت امنا لن امنا لن بعد عدم غناو نياك محدن غسات غراخو دارا يال دا فوتك من نفي موي لان مو يال دا فوتك مولم من نفي <clears throat> يما ووتك نيوم لوتاخ ndax yalla subhanahu wa ta'ala dafa njëkk suñu borom subhanahu wa taala qadimun lu njëkk la te mbindee fi ñoom ñàpp dañoo sosu amuñu woon gannaaw lañ leen door sos yàlla dafa njëkk te mbindee fi ñoom ñëpp dañoo sosu gannaaw ñàkk gu sell cee leen yàlla am rek kon mënuñoo bokk yàlla lu sos wut ak lu sos xam nga mën ñoo bokk. waa naa ak mbindeef it ajraamun ay jëmm lañ wa araadun ay gaargaar wallaahu taala yàlla mu kawe mi bi bi e, jirmin nekkut jëmm wala ardin du gaargaar yàlla du jëmm du gaargaar mbindeef yi ay jëmm lañ ak ay wala yaxwi du làq yàlla makaanun barab wala yastamiru du làmboo alayhi si yàlla zamaanun jamono walay sa nekkul fii jihaatin ci ay wàll minal jihaati sitt ci wàll ci benn wàll yi alati juróom-benn wàll yi nga xam ne xëy ñoom mooy fawqa ci kaw wa taxta ak suuf wa amaama kanam wa xalfa ak gannaaw wa yamin ak ndeyjoor wa shimaar ak càmmooy yàlla du jëm yàlla xajut ci barab yàlla xamut jamono jum xaj yàlla nekkul ci benn wàll nekkul ci kaw nekkul ci suuf nekkul ci kanam nekkul ci gannaaw nekkul ci ndeyjoor nekkul ci càmmooy maanaam nekkul ci benn barab wala si barab nan lay xajee ci barab te moom moo xamal barab moo tax li àndoon ndax yàlla taala kawe na mawjudun lu am la qabla an yaxluqal azmina njëkk ñuy bind muy bind jamono yi wala amkina ak barab yi wala jihaat ak wàll yi kon nu muy xajee ci loolu wowata moom alaana léegi. alaama ali ca nam meloon kaana la nekkee kaana laa wala chee maaw yonent ko wax yàlla dafa nekkoon yàlla dara nekkutoon ak moom wowal ali alaama wowal kaana ba léegi nam meloon la mel ñu ne Seydina Ali ko wax am ñu ne waaye bu riwaay bi wérut maanaam bi wér na nam meloon ba léegi noonu la mel moom la waa wax fi lu tax ma nan meloon ba léegi noonu la mel ndax yàlla du soppeeku luy soppeeku rek lu sosu la ñoo fi wax léegi ne luy soppeeku lu sosu la yàlla kon du soppeeku nan meloon rek la mën a mel ba léegi jaana bu fekkee nam meloon la mën a mel ba léegi te moom fépp la nekkoon ba muy nekk asamaan amutoon yàlla moo fi nekkoon te dara nekkut fi woon loolu lu muy tekki mooy fi asamaan nekk te yàlla fa nekkoon parce que bu fa benn espace nekkoon moo xam ngelaw la wala jaww lu toll ni mbaggam yooyu yàlla ak loolu ñoo fi nekk ndoor te yàlla bindul loolu kon parce que loolu moo yàlla ñoo fi nekk ndoor mais bu ñu yàlla nekkee moom kese moo ne espace sax amutoon yaa ngi dégg na ma bëgg wax bu baax gannaaw ga la bind ba mu bindee taxut moom yàlla mu soppeeku dara ndax moom dara lootuloo ko loolu la soppeeku. fifteen waaye léegi nag képp koo wax ne léegi yàlla ci kaw asamaan te la nekk ci kaw aras toog mooy ne kon yàlla léegi dafa wàññeeku wàññeeku wàññeeku wàññeeku wàññeeku fépp la xajoon fépp la nekkoon waaye léegi wàññeeku ba ci kaw asamaan mu toog sin bi loolu xeeru maaqul xelwul loolu shirkun azim bokkaale bu mag la ndax mooy ne yàlla mindeef la kon parce que soppeeku na yàlla du wàññeeku du tuxu du raxaloog dara moom na mel rek la mel wowal aar moom yàlla ba léegi alaama ali yi meloon kaan la la nekkee law ñeel na ko assanaaw tagg ay alwasfu melo bi kulli jamilin ci lépp lu rafet bépp melo wu rafet rek yàllaa ko yeeyoo loolu moom yàlla rek lañ mën a wax ne bépp melo wu rafet moo ko yeeyoo ku moom am na melo yoo yeeyoowut لأنه نخمم يالا متصف أجي ملولا بصفات الجمال تي ملو تار ونعوت الكمال أك ملو مت ملو تاريك ملو مرد يب يالا كو ملو فثبت مسخ بما تقرر تلن سخل لغي وجوب المخالفة ورق هوتي لذاتي نيل جمم دنگ لي dafay war ne kon ndeke jëmmam ñi dafa wuteeg lépp koo xam ne ne ko fenn daj fépp melo yi rafet yëpp di sa melo rafet yëpp di sa melo dëgg-dëgg loolu loolu lay la wuy wane ne yow da wuteeg lépp bi dalil subutil xidam ci tegtalu sax ak njëkk lii wane ne yàlla dafa wuteeg lépp mooy moom yàlla dafa njëkk subutul xidam sax ak njëkk la woo ñeel ko bil ibtidaayin ci lu commencement wal baqaay ak des beneen tiyaayin ci lu jeex anam mbindeef bu mel noonu ko xam ne amoo foo commencé amoo foo yem doo wàññeeku doo jaxasoo dara doo raxalook dara doo euh, kenn melul noonu yàlla rekk mel noonu tax laysa ka misli shay'un dara melul ne yàlla bu ko imagé neen boo ko imagé neen rek jum xaala woon cheikhu laqaani fii jawharati si jawharam ba ne wa innahu naka mbindeef yi lammaa yenaalu ba mu leen jotee alaada mu ñàkk mu xaalifu nañu aji déedéet wala wa innoo naka li am la maayi naalu bu jotoon yàlla alaada mu ñàkk mu xaalifu day wuuteeg burhaana hadal qidam lay ak njëkk gi ña lay ne yàlla dafa njëkk lay wane ne dafa njëkk mooy ne moom mënul ñàkk ndax yàlla bu mënoon ñàkk rek day wane ne njëkkut fi mooy li Ibn Ashir waxoon rek dégg nga lamin tafal qidamu lamin tafal baqaawu xaw ma nu ko xaw ma nu ko waxatoon lan tafal xidamu waaw law am kana alfanaawu lan tafal xidam waaw su fekkoon yàlla mën naa jeex kon ñi xam ne njëkkut fi mooy maanaa bayti bii rek way noonu nag li am la maa yee naa lu ba ko mënoon jël anaada mu ñàkk kon mu xaalifun aji wutee la burhaana haazal xidam layak njëkkam gi yàlla su fekkoon ne mën naa jeex day war ne njëkkut fi lu tax loolu boo fi njëkkee da nga bind lu la mën a rey doo ko mën a bind doo ko bind parce que yaa fi njëkk lépp lépp lu am yaa ko créé kon doo créé lu la ëpp doole wala lu la fi mën a jëlee yaay créé lépp ñaare loo créé rek yaa ko yilif loo créé yaa ko yilif eh, ba nga xamee ne ñun eh, créé wuñ dara moo tax lu ñu mën a rey nekk fi xam nga léeg-léegi gën waa xel dana war ma nit mën naa créé oto ba pare oto bi mbëkk ko mu dee kooku créé wul oto weñ ñi ko mbëkk mu dee loolu yàllaa ko créé waaye moom kay bu doon sos moom du sos lu ko mën a rey weñ yi ko mbëkk mu dee yàlla ko créé moom dafa taqale weñ yi rek waaw mais loo créé sa bopp du la mënal dara hmm, kon yàlla bu mënoon a jeex rek dañuy xam ne la ko fa jëlee moo ko fa njëkk dégg nga loolu mooy maanaam béytu boobu dégg nga la moom yàlla fii zaati ci jëmmam wa fi sifa ak ci meloom laysa nekkul ka mislillaahi di mel ni yàlla cheyun dara faarifa na nga ko xam incha baytu boobu teyam foofu yàlla kenn la ci jëmmam kenn la ci meloom xamul lu mel ni moom xamal loolu subhanallah lii daf lay jàngal tawxid bëri nañuy woote tawxid waaye xamuñ tawxid ndax seen tawxid gi yëpp du dara lu mooy jël yàlla taaj ko ba ci kaw asamaan rek na ko toogal utal ko sées na ko toogal loolu shirk la loolu moom bokkaale la te boo déggee darsu bi ni ko jàngalee ak lay yi indi da nga xam ne loolu bokkaale la ak ku ko mën a wax ay anna laa naka yàlla taala kawe waahidun kenn la fii zaati ci si bi maanaa maanaam mooy anna zaatahu naka jëmmam laysat nekkut murakkabatan di lu toggaloo min ajzaayi ci ay xaaj kazawaatinaa comme suñu jëmm ji wala fil wujudi di nekk ci mindeef yi zaatun uxra beneen jëmmum kazaati bu mel ni jëmm yàlla ji nee na yàlla kenn la si jëmmam maanaam bi li muy firi mooy ne jëmm yàlla ji amul ay cër comme suñ cër comme suñ jëmm ji nii am loxo bopp nopp tànk nee na yàlla amul lool nee na mbindeef it boo xam ne am na jëmm ju mel ni jëmm yàlla ji loolu rek moo doon firi wax ji yàlla kenn la si jëmmam mooy jëmm ji amut benn mbindeef boo xam ne nii am na jëmm ju mel ni jëmmi yàlla ji yàlla kenn la si jëmmam mooy ne ñaari yàlla amut benn jëmm nekk fee nekk yàlla benn jëmm nekk fee nekk yàlla parce que loolu mustahil la lu jomb la koo xam ni yow fépp nga nekkoon ah loolu mun nekk ñaar loolu xel sax moo ko njëkk bañ ku dajoon fépp kooku mun nekk ñaar moo tax yàlla kenn la si jëmm mooy ñaari yàlla amut waaye xam benn mbindeef it bu niroog yàlla si jëmm loolay tekki bi waaye boo ne yàlla amut jëmm comme jëmmi doomu aadama man amut tànk amut bopp nangam nangam. kanaa kon léegi da ngaa bëgg a wax kon comme bant la mel wala comme xaal ta lay sa kamis lay cheyun yàlla melul ni dara di kon su boobaa jëmm yàlla ji moom bul ko jéem a nenn bul wax ne melul nii bul wax ne nee mel yàlla am na jëmm rek ñoo xamuñ jëmm ji nu mel jeex na boo ne jëmm yàlla ji melul ni comme doomu aadama am ay cër mooy ne comme kon ni bant la mel wala ni xaal te yàlla lay sa kamis lay cheyun ni nen kon yàlla kenn la ci jëmmam nañ ko war a mooy ne yàlla ñaari yàlla amut loolu mu dafa jomb comme ni ma leen waxee léegi ki daj fépp mun nekk ñaar ñaari yàlla amut waaye amul mbindeef bu niroog yàlla ci jëmm loolay maanaam waaye dun kenn la fi sifaat yi ci melom ay anna sifaatahu naka melom yi taala kawe na kal qudrat ni ki kàttan wa iraadatu ak coobarewu ila axiri sifaatin maani ba ci mujjëg meloom maanaa yi kullu jinsin bépp xel mi naa ci moom muttaxidun aji bennoo la laa mutaajidun lii mu wut yàlla kenn la ci melo mi mooy melo wu nekk ci melo yàlla yi tekkul ne melo yàlla yi benn la déedéet melo yàlla yi ay melo yu bari la waaye melo wu nekk ci melo yàlla yi benn la mboole melo maanaa yi ñu nar jàng ci kanam yii moom mooy sifaat asalbiya waaye melo maanaa yi ñu nar a jàng ci kanam melo wu nekk rek benn la ci yàlla nigi ngi benn kàttan la am coobarewu benn coobarewu la am waaye du liimu falay sa nekkul law di ñeel yàlla xudrataani ñaari kattan faak sara wala lu ko ëpp wala iradataani amul ñaari coobarewu masalan ci misaal coobarewu mooy koo xam loo bëgg mu am loolu yàlla amul si ñaar benn coobarewu rek la te walay sa nekkut mi li ahad ñeel kenn sifaatin melo sifaatin melo ka sifaati ni ki melo yàlla taala kawa walay sa nekkul li ahad ñeel kenn sifaatun melo ka sifaat yi ni ki melo yàlla taala kawe amul kenn ku am ni melo yàlla ku am melo wu mel ni melo yàlla yi waaye yàlla yi melo wu nekk ci melo mi benn rek la foofu nag moom mm, xam naa ne dana doy waar parce que lii mu jàngale dëgg la yàlla melo mi benn bu nekk benn la ci am waaye ñoom li ma jaaxal ci kanam sax da ngeen ko gis dañoo firé al qudratu kàttan ne yàlla benn la ci mën a am te yedullaayi loxo yàlla ñoom ñu firé ko ne mooy kàttanu yàlla yadullaay lañ ko firee mooy kàttanu yàlla te kàttan melo la benn kattan rek la yàlla mën a am te yàlla tuddal nañ boppam ñaari loxo bal yadaahu mabsuutataani tuddal na boom ay loxo wa sama banaynaa bi ay ah kanaa kon dafa am ñaari kàttan wala ay kàttan moo tax foofu foofu mu fassi eh, ñenn ci mu fassiroon yi ak ñenn ci ulamaa tawxiid yi borom xam-xam tawxiid ci def tanaaqut tanaaqut mooy dàqal yàlla dara ba pare saxalal ko ko ci côté dàqal ko na ñaari kàttan mënu ko am benn kàttan rek lay am parce que melo bu nekk ci yàlla benn melo la ba pare saxal ko na ñaari am na ñaari kattan parce que da nga ko saxalal ñaari loxo ak ay loxo moo tax loxo yàlla yi foofu taawil bi war nañ koo xoolaat dégg nga woo waaye kenn la fi afaali ci ay jëfam moom yàlla fala sharika dér bokkaal loo di ko ñeel fii fi'lin ci jëf wala fi tarkin du caagen ci bàyyi albattata ci lu dog yàlla amul kenn kuñ koy bokkaale ci jëf wala bàyyi waa shaara juñ naan naasimu waykat bi ila zalik jëm ci lool kulli lépp bi xawli ci waxam jum naan laysa nekkut ka mislillahi di mel ni yàlla sheyun dara amul dara lu mel ni yàlla loolu la waykat bi di juñ ne moom amut ñaare yàlla waaye moom kenn ku am jëmm ju yem ni yàlla am yàlla meloo mi bëri na gaa waaye melo wu nekk wenn la te amul kenn ku am melow yàlla am yàlla it jëfam yi bëri na lool waaye amul kenn ku mën a jëf li yàlla di jëf loolu mooy lay sa nekkul kamislillahi di mel ne yàlla cheyun dara wal kaaf kaaf gi fii kamislillahi ci kamislillahi di mel ne yàlla zaayitatu dañ ko ci yokk lay nekkul mislallaahi kem yàlla séewun dara loolu moo doon wax ji kaaf gi ko cee yokk ataa dikk na biyaa moom moom waykat bi mu waafiqatan ngir dëppoog li lafzul quran ñeen baatu alquran mooy woowa xawlu taala wax yàlla ju mu lay sa nekkul ka mislihi mel ni yàlla séewun dara wax ji boo ko doon firi mooy li mel ni yàlla dara melu noonu lay sa nekkut di mel ni li mel ni yàlla séewun dara <laughs> waaye kaaf googu dafay wane ak dàq waxuma sax yàlla moom niru ko waaye bu fekkoon am na lu niru yàlla rek loolu kenn mënu koo niru loolu mooy wane yàlla dara niru ko rek wal muraad lañ namm ci wax jooju nafyul masili mooy dàq ku mel ni yàlla wa shabi ak ku niroog yàlla wa nazir ak ku ndend ak yàlla ku dend ak yàlla fi zaat yi si jëmm wa sifaat ak melo wala fan ak jëf yàlla xamul ku dend ak moom si jëmmam wala ci meloom ak jëfam fa zahara mu feeñ mi maa qaranaaw lañ sax la saxal lañ ko fi sifatil waxdaan yee ci meroog wéet intifaawul kumuumi dàq ak mbir yi alxamsa yi di juróom lañ tuddee ku moomul xamsa muy juróomi mbir al musayala yi jëmu fi àq yi ci àq yàlla lañ wax ni boo ko boo ko xamee da nga xam ne juróom yooyu dàqu na waaye moom ku moomul xamsa foo ko fekk ak taaddudu mooy liimu fi zaati ci jëmm wa sifaati ak melo yi ittisaalan ci jokk wan fisaalan ak ci tàqaliko ak taaddudu fi zaati liimu ci jëmm yi ittisaalan ci jokk mooy ñaari jëmmu am yëpp nekk yàlla loolu mun nekk yàlla xaaj ñaari xaaj bii di yàlla bee yàlla mun nekk liimu ci jëmm infisaalan ci tàqalikoo mooy beneen mbindeef niroog yàlla ci jëmm loolu mun nekk wa temps lii fi sifaati ci melo yi ittisaalan mooy yàlla am benn melo nekk ñaar ci yàlla comme ñaari kàttan wala ñaari coobara wala ñaari xam-xam lii ci melo yi infisaalan ci tàqalikoo mooy dégg nga lii mu ci melo yi infisaalan ci tàqalikoo mooy mbindeef xam melo wu bokkut ak melo wu niroog yàlla yi maanaam yàlla ci biiram mënul xam ñaari jëmm ci bitteem ci mbindeef yi maanaam foofu jëmm ju niroog yàlla mënu fa am ci biiram benn melo mënu faa nekk ñaar benn kattan la ci bit amul mbindeef bu am benn melo niroog melo yàlla loolu ñeent la jëmm ji amul bu mel ni moom ci biiram ci bit maanaam ci mbindeef yi amul jëmm ju mel ni moom melo yi ci biiram amul benn melo woo xam ne ñaar la mu ñett melo yi ci bit maanaam ci mbindeef kenn ko am melo wu mel ni yàlla am ñeent ba ko juróomeel mooy wa taadudu ak liimu fil afaali si jëf yi infisaalan ci teqale ko waa ma taadud waaye liimu fil afaali si jëf yi ittisaalan ci jokk fa jaayizun du dagal la jëf yàlla yi moom ci bitti amul kenn ku mën jëf jëf yàlla yi waaye ci biir moom yàlla mën def jëf jëfaat ko mën naa reereyaat wërsëgal wërsëgalaat mën dundal dundalat kon moom moom ci boppam dana jëf-jëf ñaari yoon waaye nag wala ba ba lu xam doy na waaye nag amul kenn ku mën a jëf moom la muy jëf kon bu dee wàllu jëf yi moom la fa jomm mooy lii mu ci jëf infisaalan ci bitti waaye lii mu ci jëf nag ci biir moom dagan na li an afaalu ndax jëfam yi taala kawe laa tan xasiru du takk du takku laa tan xasiru du takku mën a amul fu mu yem faarifu xamal ko xamal loolu ay enref xamal boo taqit fasal jaaziman fas gu dogu subuutal waxdaaniya sax ak wéet la woo ñeel yàlla taala kawe na fi maa taqadama ci la jiitu na bayaan woo leeral maanaam na nga xam bu baax ne yàlla ku wéet la dégg nga comme nuñ ko leeralee kenn la it faasi lii hiya moom asifaatu salbiya mooy meloog rekki melo yii lañ tuddee meloo rekki yi moom lañ jàng tey ëlti yi nga xam ne yooyu ñoom alqidamu moo di njëkk jàppal wujuudu moom melo jëmb la melo yàlla dafa am loo xam ne melo jëmb la am loo xam ne melo maanaa la melo jëmm wujud la melo yi rekki nag mooy alxidamu njëkk albaqaaw des ak almuxaalafatu lil xawaadis wuuteeg mbindeefi ak alqiyaamu bi nafsi taxaw ci boppam ak alwaxdaanatu wéet wa summeetule nañ ko salbiyatan melo rek li annaa ndax moom salabat rekk na ay nafar dàqanaa lillaahi ci yàlla amran mbir moo xam ne laa yeelu ko yelut bii ci moom melo rek lañ ko tuddee ndax dafay dàqal yàlla lu yelut ci moom njëkk dàqal na yàlla ak jiitu ak ak ak njëkk dàqal na yàlla ak ñàkk gu jiitu am des dàqal na yàlla ak ñàkk guy jot ak xam guy jot ak xam wuteeg mbindeef yi dàqal na yàlla maase ak mbindeef taxaw ci boppam dàqal na yàlla soxla leneen wéet dàqal na yàlla morom melo woo ci jël rek dafay dàqal yàlla lu yellut ci moom in uridu illa islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh